nga xam ne jamonoy nawet lañ nekk bu tawee mu bañ a taa wala bu taayee ñu gaaw pompe ko ndox mi bañ dem mu bañ a solal sonal ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ndaxte oto yi dañuy daw euh, nit ñi tamit foog ñu am fun jaar donc loolu yëpp moom lay ñëw nag xool ba xam service yi matala nañ ko bu baax a baax sëriñ bi tamit wax dëgg yàlla euh, sant ko bu baax ci mesures yi nga xam ne état bi jël na ko ndaxte jëruñu boobu ba léegi ñu ngi fiy jaabante président de la république mi ngi nii ñëw toog nag euh, mu ngoog installé nañ ko mu toog Euh, Bassirou Diomaye fay ngi nii nag toog na ñu ko nag du yàgg dara nag ngeen gis Serigne Mountakha euh, Mbacké daal di ñëw euh, ku tedd ki donc ñëw nag xayma li nga xam ne moom moo di lépp loo xam ne ay mesure la yoo xam ne jël nañ ko ci màggal gi nag xool fan lañ ci toll ndaxte xam ngeen ne ajjuma la tey la altine daanaka talaata àllarba ak alxames rek moom moo ci des daanaka ñetti fan ñu yegg ci euh, euh, rek bés bu boobu boobule laata ñuy jëm ci cérémonie officielle bi nga xam ne na dina am euh, lendemain bi ci ëllëg gi mu di samedi bi. sànq nag maa leen ko doon RTS sax xam ngeen ne jël na matuwaay yëpp dispositif bi yëpp ñëpp jël nañ ko ba tax na lépp loo xam ne daal ay image la ak lépp loo xam ne war ngeen ko rek dégg ci discours président de la république wala ci kaddu xalif bi. Eh, sëñ Bass jotale ko di ngeen ko meuna deg ndax nak matwa yeb jël nañ ko dal ba ngeen meuna am eh, deg eh, lepp lo xamne am ngeen am nga soxla ngeen ko rek ci ñëw njiitu réew mi fi ci Touba ngeen ngeen ngeen ko dara lu leen ci rek non nak lañ ko defé ci waccay magal gi boobu ba léegi danaka fukki fan ak lu top ñu nekk ci waccay magal gi ba nga xamne danaka ñetti fan mom mo ci euh ñu yex ci bés bu sel bobule donc euh, kon euh, télévision nationale ak ay ay seen ay technicien nga xamne ñu ngi def liggey bu am solo euh, di technicien yo xamne ba ñu yexé rek demb. ak barki demb dañoo tambalé liggey bi tambalé rek ñew fi dañoo wacc auto bi rek ñew kër khalif bi Serigne Mountakha daal def câblage bi nga xamne nak bëggu ñu dara betti len dara rëcc len ñu leen di ndokkeel tamit ñoom technicien RTS yi nga xam ñu ngi def liggéey bu am solo muy preneur de son yi muy caméraman yi muy ñi nekk ci car bi muy ñi nekk ci waa fesoog waa réso énergie ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ay yoo xam ne jàmbaar lañ ci liggéeyu Serigne Touba bi moom ñoom tamit euh, Serigne bi mi ngi leen di sant bu wax ndax at mu jot noonu lañ koy defee taxaw ci màggal gi ba mu yegg si ba jàll ñu jëm ci cérémonie officielle bi kon sëriñ bi tamit euh, mi ngi sant waa RTS bu baax a baax moom sëñ Mountakha mi ngi leen di sant bu baax a baax ci rek taxawaay bi nga xam ne RTS am na ko euh, ci màggal gi wàccaay bi ak tamit bu màggal gi yegsee kon mu ngoog donc euh, xam na gis ngeen ko ne ngi taaxeerlu nag ar kilifa gi mun Mountakha Bassirou Mbacké daanaka <clears throat> léegi mu yegg si moom sëriñ taxa Bassirou Mbacké leg mu yegg si nak gis ngeen euh, timit euh, ba tey rek xam ngeen ne directeur général pap alenia timit momit ñew na fi euh, bërki démb ñëwit set ci khalif bi wax deug yalla sank ma len ko doon wax lepp lo xamne tay ñing ko fi liggéey tay ji taxaw na ci taxaw bu am solo moom timit directeur général pap alenia Niang sant bu baax di ko ci bes bi di ko ñaanal yalla timit yeen bi woyof lol ci kom ak wa RTS yep yalla yokku xewali

Euh, donc euh, di def liggey bu am am am solo donc mu ngok xamna nak euh, euh sëñ bi dina gëna insister bu baaxa baax ci dem beeg dik bi xam nga nak lepp lu jëm ci walu karange dem beeg dik bi xamna nak président dina ci gëna insister ak Cheikh bastime dina ci gëna insister ndax magal gi timit ku fi ñew da nga wara a jam seeg jàmm ñibbeeg jàmm yàgg sa du ñak dina ñaax ñi nga xamni ñom ñoo di sofor si ñu daw ndank timit kep ko xamne Euh, li nga war a yab moom nga war a yab nga yab ko ba doo yokk euh, li nga xam ne moom moo di place yi teg ko tamit ci yërmande ndaxte màggal gi bu yegsee ñëppay bëgg a ñëw donc tamit ñu def yërmande ci paas yi comme ni ko ministre El Malick Ndiaye santaane euh, donc ñu def ci yërmande ba xam ne màggal gi moom lépp loo xam ne war nga ko ci lekk ci sa wërsëg rek di ko ci lekk ci kàttan ak suñu borom ak ci ndimbalu sëriñ bi xam naa dinañ gën a insister ci li nga xam ne moom moo di kaaraange gi Euh, fi mu nekk nii euh, ci Sénégal rawatina waaye jamonoy màggal gi nga xam ne euh, ci la ñuy nekk ndax xam ngeen ne daanaka bu àllarba jotee rek daanaka ñëpp dañuy ñëw alxames nag moom mooy bés bu mujj bi daanaka moom bu alxames jote moom tubaab moom ñëppay ñëw donc xam naa ne dinañ gën a insister bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di kaaraange gi sécurité routière bi ak agence nationale de la sécurité routière mu ngoog je pense que ni waxtaan wi bu tàmbalee rek dañuy dugg ci salle bi daal di leen bàyyi euh, ngeen mën a topp waxtaan wi nag tey jii waaw mu ngoog dañuy xamle rek ne sëriñ bi mi ngi waaj a yegsi ñu xàll yoon wi te ñi nga xam ne dañoo taxaw ñu daal di toog ndaxte kilifa gi mi ngi waaj a ñëw ñu defaraat toogaay bu baax a baax euh, moom nag la ñuy annoncé ci salle bi noonu euh, yàggatul fi mu nekk nii nag ñii nga xam ne ñoom ñooy filmer rek ñoom ñoo taxaw fi mu nekk ni moo di journaliste yeeg yooyu Euh, ngeen koy gis ni daanaka kon Serigne Mountakha euh, soreetul mi ngi fii eh, ci salon beneen salon bi daanaka soreetul moom rek la ñuy xaar président moom lay xaar Cheikh Bass a noonu ak euh, waa kër Serigne Touba yëpp eh, sëñ Bass Porokhane ñoom ñëpp sëñ Moussa Nawel ak ñoom ñëpp ñu ngi fi wax dëgg yàlla jàppale seen jëwriñ Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Porokhane yàlla yàggal ko fi ye oo yefal bi ci kom yalla may ki wer ak fanu gudd mu fekke lepp yag fi lool te ànd ak wér mbàkke donc nak mu ngok ni lan len ko topale euh, ci bob ba legi nga xamne ñi ngi ci waccay magal gi nak defal na len ci ay geussu yu am solo ah, xam ngeen ne serigne bi nak dafa àndoon ak ay cheikh yu bari yu ci melni kon ay serigne Modou Diaw Paxa euh, yo yeb di ngeen ko am ay dekuba ay portrait yu am solo yo xamne indi len ko ci magal gi yeb di ngeen ko xam ay serigne Ibrahima Diop Almasari demb gis ngeen ko lu ci euh, ñu bare bare ay sëñ Mor Kuna euh, ñoom ñëpp euh, di ngeen ko gis ñu defal leen seeni portrait ni ñu àndee woon ak sëriñ bi loolu baax na ñu xamal leen ko muy xamle màggal gi comme ni ko jëruñ Abibu Mbay di defee loolu daal am na solo lool ñak mag ndax mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak cheikh bi sëriñ bi ci yoon wi te sëriñ bi defar leen limu woon nañ lool waaw dañoo limu ba am na ñoo xam ne sax génneeguñ leen waaye xam nga na ak seen xarañteefu euh, télévision national euh, fépp foo xam ne nag kon euh, maanaam sët yaa nga fa danañ dem fekk la fa seq waxtaan ak yow bu dul màggal gi di doon màggal gi di ñëw wala yeneen yi di ñëw képp koo xam ne nag cheikh nga wala ngay mag ànd ak sëriñ bi nekkoon ci yoon wi di ko jàppale ay dinañ di dinañ dem sa kër seeti ñi nga xam ne ñoom lañ fa bàyyi ba ci seeti ñu gën leen ko xam leen kii mooy ministre finance finances di baa mingi nonu tok Cheikh Diba ministre des finances mingi suis mom ministre de l'Intérieur, le général Jean Baptiste euh, Tin. Euh, mungok euh, xam ngeen ne lepp lu jëm ci qui des finances da fay jappalé bu opérateur économique yi xam ngeen ne bâtiment secteur des bâtiments et travaux publics lu am solo la fii ci Touba ndax dëkk bi dafay gën a yàkkaliku Serigne Bass Porokhane ngi noonu borom Porokhane mi ngi noonu di doom ci sëñ bi mu ngi noonu di doomu sëñ Moustapha di doom ci sëñ Mountakha Bassirou Mbacké sëñ Bass Porokhane ngi nii moom it Porokhane gi lu toll ak fanweeri at daanaka ñeent fukki at boobu ba léegi la ko ko waajuram dénkoon sëñ Moustapha Bassirou nga xam ne mooy mag ci Serigne Mountakha Bassirou mi Euh, sëñ Moustapha Bassirou jox ko liggéeyu poroxaan gi boobu ba léegi nag lu ëpp ñeent fukki at mu koy doxal màggalu poroxaan dem tey ba toll ni nga xam ne moom la toll barabu soxna jaara bi ñu defaraat ko ci ndégalu sëriñ Moustapha Bassirou jaar ci sëriñ Mountakha mii nga xam ne moo fi nekk xalifa tey loolu yëpp dañ koo teg ci sa loxo ki nga xam ne moom moo di sëriñ Bassirou Mbacke poroxaan euh, boobu ba léegi nag liggéey bi kon gis nañ ko ndax ku dem poroxaan gis barabu maam jaara bi nga xam ne nag sëriñ bi euh, liggéeyal na maamam soxna jaara foofu lay nga xamne lo fa ñaan wax deug yalla mom soxna jaara moy genn jigen nga xamne mom mo am magal euh, ci adina euh, mom muy soxna jaara euh, mu dina ko nangu ndax li nga xamne mom la liggéeyal borom kërëm muy Mamor Anta salim Mbacke liggéeyal ko domam di Serigne Touba Mbacke khadim rasoul ministre El malik ndjay ministre des transports des infrastructures des transports terrestres aériens mi ngi nonu ak Serigne Gueye job ministre du commerce et de l'industrie ngi nonu ak euh, ministre Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'hydraulique et de l'assainissement euh, moom it mi ngi ak euh, ministre Moussa Balla Fofana ministre de l'urbanisme du des collectivités territoriales moom tamit ñëw et de l'aménagement du territoire moom tamit ñëw fa mi ngi mi ngi foofu Moussa Balla Fofana donc pour vous dire que daal tey jii wax dëgg yàlla gouvernement bi ñëw nañ ñu ci bari ñëw nañ député yi tamit ñu ci bari ñëw nañ ñoom sëñ Cheikh Thiorok ñoom ñëpp ak ki nga xam ne moo di sëñ Abdou Bara Dolli Mbacké moom tamit mi fi. Cheikh Bara Dolly Mbacké sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké ci suba ba léegi mom tamit mi ngi fi nga xamne momit ci kër gi la bokku mom tamit mi ngi fi nek fele ci assemblée nationale honorable député di taxaw tamit askanu wa Touba ndaxte ay bëss ba lañu génn rek ci journal de l'arbre jox na fi ay moto pompe yu am solo fi ci diwanu Touba ndax xamne moto pompe yoy la dañ koy soxla ci nawet bi ñu nek mu nek ay moto yu pompe yu bari yo xamne mom moom sëriñ bi Cheikh Abdou Bara Dolly defal nako donc wa Touba